السلام عليكم ورحمة الله باكي نجلني نيو دي لين زيارة لين بال دي لين بال نان برمي سبحانه وتعالى وبول نجيجا نيو سنيو دروس رمضانية رقم 22 من يمن والصيام بالليل ثم أصيب بالجنون ولم يفق إلا بعد غروب الشمس فإن صومه لا يصح المالكية والله أعلى وأعلم بندمكور نيميرو 22 ولا ماندر جنيار فكك نيار képp ku yéene woor ginnaaw ga mu tàggali ko ak sagoom ci bis bi ba timis jot koor googu wérul yàlla mooy ki xam lépp ki nga xam ne masalan tey ci samedi gi dafa am yéene woor mu daal di xëdd yi mu xëddee ñu salaatu mu tàmbali kooram waaye bis bi mu bi ñu salaatoo rek mu daal di tàggalikook sago moo xam dafa crise am crise nekk en koma wala moo euh, nekk daanu ay rab wala mu xëm yooyu yëpp ci junoon gi lay dugg ba timis jot bu timis jotee bis bi yëpp mu nekk ko ci ñàkk xam ci lu àdduna bi nekk ci beneen alam koor googa wérul bis boobu daf koy fay samedi boobu ba koor gi jeexee da koy fay loolu moy li ñëw ci masala bobu koku mazhabul maliki loolu lay atte woo yan yàlla defal dégg ak top aqulu qawli hadha wa astaghfirullah azim li wa lakum wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh